jëf mbokki yi bàyyi xel MPROD TV mbokk yi tey yaram yu bëri nagam na te yaram yu bëri dee na gis ngeen dogal bi mais gis ngeen li xew ci Sénégal actuellement Cheikh Baye ne ma trahison moo am ma ne ko kan moo trahir mu ne ma Sonko dañu koo trahir ma ne ko ñan la mu ne ma du ko jiiñ état du ma ko jiiñ benn politicien mais ñi ko jege la dinaa ko laaj kan moo trahir Sonko. danañ waxtaanee li xew ci dëkk mbokk yi sëriñ bi ab buur la dugali woon xalwa ca Maroc mais daf koo dagg ñibbisi ne ma actuellement li ma gis Sénégal tiital na sama fit sama askan am na lu ma leen tiital sëñ bi dañ lay bàyyi nga nuyoog askan wi ñu soog a waxtaanee li xew ci dëkk. dégg ñu ngi lay nuyu di la ziar sama yaram dafa daw sama yaram dafa summeeku si lu bëri ndax man gëw ma nit sax. ngeen ñàkk bokk réew. Mm-hmm. nga war koo mën a trahir. Mm-hmm. osontumaa ñi nga xam ne ñooy wax na ñoom ñooy sëriñi ay sonk Sonko du état moo ko trahir déedéet. ñan ñoo war Sonko. Sonko ay sëriñam. yi nga xam ne ñoo defaan ñii ñooy sëriñu sonk yi di toog télé yi di ratatati di wax. Mm-hmm. ñooñ ñoo njëkk a sonk Sonko. ñi ci internet ñi ci internet bi ñoo njëkk a sonk xam nga lu tax ñi trahir ko. du faral di wax lu bari ci. diggante sëriñ ak sëriñ mais tey ku mel ni Cheikh baay tey dana jug fa seen a dimbale Sonko ay ñu band yu xeeb yu du tus di dekkaat ay nit di piraat Cheikh baay di wax na ñoom ñooy Cheikh Baye di yàq saraxi Sonko ndax lu rafet na man bi may dem Maroc Sonko yóbbuwuma fa kilifa moom ma yóbbu jox ma ay million ma dem defali ko xalwa bi ma gisee jafe-jafe yi si laa daggaat bi ñëw kon dafa am loo xam ne si Sénégal na ko sëriñ si ji bàyyi sëriñ si rek ñoo trahi Sonko du état du kenn gis nga toog télé fi nit ki jëm nga dig ko waxal amul benn njariñ xam nga li am solo. mooy nit ki lim nekk. nga dimbale ko si. nga faj aajo. entourage bi mu amee. benn baaxu si. looloo tax Macky Sall heure bu jugee day jàpp. mënut a ñàkk jàpp. bu sànnee mbaal day jam. heure bu sànnee mbaal day jam gisoo Sonko jàpp yu xeeb yi ñu koy jàpp. Sonko mos nga gis ñi ñëw di ko jàpp jàpp bi yomb. wala wala nga gis jàpp bi dëgër déedéet dañ koy fekk fa mu nekk rek kanappi yóbbu bu demee nag mbojo mbojo yeeg waxkat yeeg sëriñ yëpp ne si internet bi di wax. ci côté baatin ñu ne woon taxaw nañ ci côté baatin taxaw nañ ci côté mystique baatin est-ce que ñenn ñi niñ jàppee ne am nañ ko est-ce que noonee la demee parce que mbokk yi li jot a xew nii tax na ñu bëri defaat nañu rikil xam ne sëriñ ci biir sëriñ si dafa am. dégg. Mm-hmm. baatin yombut. Mm-hmm. bëri na sëriñ yuy wej weji si baatin ñoom xamuñ sax lii baatin dégg man bi ma xamee ak léegi mi ngi si ay fukki at wala lu ko ëpp ban sëriñ nga mos a gis mu teg seetu rawaan ne la rawaan bi lay aw pour seet seet moom nangu lañ la ko moom surtout ndox mi sëriñ nga mos a gis mu ñëw tegal la ndox ne la seetu rawaan gii nii nga ne ko waaw mu ne la lii baatin la dégg am na sonk <laughs> sarax boo xam ne ña ko doon saraxeel ñi nga xam ne ñoo ko doyloo di ko saraxeel ñoom dañoo juum sax si sarax boobu pour mën koo defaral Sonko. est-ce que duñ jël kaasu ndox bi nga leeral Sénégalais tey lan mooy seet parce que boo ma saana teg ndox mi da may wax lu bëri ci nga ma waxee woon ne ma ci nga ma waxee woon ne ma am na ponkal moo xamante nii fan yii lay daanu. xam nga lii seetu rawaan la. waaw jëmmi doomu aadama yi may seetaan. Uh-huh. man rek maa leen di jox seen seetu rawaan goo xam ne buñ ko amee dootuñ taqalikoo ak jafe-jafe dégg doo mës a gis benn sëriñ bu ñemee taxaw risque baatin xam nga lu tax ñaan dafa am ñaanantu am dégg man su ma neexee may tëdd di nelaw lépp lu nekk si réew mi ma di la ko wax damaa gën a nilaar am na ñoo xam ne ñi ngi si internet bi lu xew rek ñi daw bëgg koo wax nga lu tax dafa am lu ñuy wax rawaanatu xel mu yi boo xam ne moo jamaarloo ak fenkat yi di la wan dara nga jàpp na loolu dëgg la nga wax ko mu tombee ñu ne lii lu am la mooy la ma la waxoon bu yàgg mos naa la wax ne la képp kuy wax si mbër wala képp kuy wax si seet wala képp kuy wax si dara doo mos toog oote seet ak rawaan dëgg la te sonk mii nii ma gis nii fi mu jëm hmm? dara baaxu si entourage bi baaxut même Sonko ñi nga xam ne dañu toog média laa la wax de di di défendre Sonko xoolal li ma la wax si internet bi rek la yem. Thierno néew nga ma am na cëwri gu ma bëggoon a jox sonkoo ñu téye ma ne ma doo dugg. dañuy def loolu ay sëriñ xam nga diggante Adji Sarr ak Sonko depuis 2019 la woon fin année 2019 la dugg 2020. Mhm. bokk naa si bi njëkk a convoqué Sonko. Mhm. bokk naa si sëriñ bi njëkk a défendre Sonko. Mhm. ne sonk mii. liñ koy tuumaal. dina ko indil ay problème te dina ko yàqal lu bari te dara du si dëgg mu am samay mbokk sëriñ si man yoo xam ne dañ ma daan saaga ndey te jamono jooju maa ngay pare woon pour jox Sonko benn gàllaaj boo xam ne bu ko teewoon ba àdduna du tukki kenn du toog si kanamam dégg. gàllaaj boobu la. gàllaaj la rek dégg Cheikh Baye ngay wax ak man dama mat si lépp. dégg man dama am lu nekk si man loo xam ne du ma bëgg di ko yee. sëriñ si dox si àddina bépp man maay seen bàyyi lu tax man su ma tukkee sëriñ si di su ma ñëwee duñ génn. dégg est que yaa ngi xool melukaan man bu ma nekkee dakaar wala ma toog raal si média nan lay sëriñ si di ak su ma commencé déw réew mi yëpp man la ñuy déglu parce que dañ ma xam improfit du ma fi gan ñaata nit la ñaata nit ñoo lay vocal di la wax seen i jàngoro ne Cheikh Baye lim ñu defal démb li ma gën a nekk seede biir Morog la ay nit di wàcc suuf terrain yi di seede ne jëmm ji bi muy dugg Morog ak ñun fim ñu fekkoon kon jëmm jooju du jëmm neen. ñaanu xaalis moom yàlla daf cee may. am am rek maam bëgg alal rek am ko eh, Cheikh Baye moo ci teg xam nga ñun duñ affaire. Uh-huh. ñun duñ téye client nañ kon utal lii wala utal lii déedéet. Uh-huh. ñun dañ lay jox réalité nga sangoo ko am xaalis. sangu rek am xaalis. sangu am xaalis am jàmm. sangu am xaalis am jàmm. nit ñi xaalis lañu bëgg nit ñi alal lañu mais nag dinaa la wax si xaalis tuuti. Uh-huh. avant ma lay wax si xaalis. dégg. feeg nit ñaa ngi wuruñte dégg da nga gis ñu bokk ndey ak baay di jamante si coow yi Ousmane Sonko Adji Sarr hmm? dégg ñun buñ bëggee nekk xam nga si lu ñuy nekk dañuy jéem a xool sin bopp hmm. xool sin jëmm hmm. xool ñun fan lañ jëm ñu yegg foofu mais fi ñu jëm nii dara baaxu si léegi nag su fekkee da nga bëgg xaalis yow sa xol bi di lëndëm doo am xaalis ah, su fekkee danga bëgg jàmm sa xol bi di lëndëm doo am jàmm dégg 2020 2021 ñi ngi amoon yaakaar naa projet Barthélémy Dias war a jëm si élection yaakaar naa. billaahi wallaahi tallaahi may sëriñ bi si njëkk a wax ne. Barthélémy Dias dafay war Ousmane Sonko. dafay war ah mbir mi gisee. waaye yow xam nga dafa am lu am si àddina pour nga xam ko. Macky Sall dafa am pion xam nga la mooy pion. maanaam nit koo xam ne. lu mu bëgg yàq dana ko yàq lu mu bëgg a defar dana ko defar. dafa mën a politique. dafa lim doon wax Ousmane Sonko en fond ba si suuf gëmu ko. du dara lum si gëm. léegi nag su fekkee dañuy dem foofu. batti daf doon préparer pour duggal Ousmane Sonko Ousmane Sonko mën a jamaarloo ak Macky Sall ñi ne si jàmm. mais dii ngi Ousmane sonk moo tax Ousmane sonk rek xam nga man tey du ma sonk Sonko. man sonk du ma sëriñam. waaye nag yéene naa ko jàmm joo xam ne tey bëgg naa yàlla defal ko ko. li tax nag mën a la du ma sëriñam mooy xam nga lan. mooy weje weje sëriñu bon yi nekk ci gannaawam man duma bokk ci ñu tafu seen gannaaw ndax bu ma tafoo seen gannaaw rek bu ëllëgee danaa bokk ci ñu may xalab kon nag bi Sonko di jógee dëkkam di ñëw ñi ma toog ak laa njëkk a wax billaahi wallaahi tallaahi bi mu annoncé ne day dem Dakar dama ne ko Koungheul lañ koy jàppee waa ji ne ma lu tax nga ne Koungheul nga koy jàpp ma ne ko billaahi wallaahi tallaahi Koungheul lañ koy jàppee ma dem laay derte na leen Sonko dañ koy jàpp xam nga bin xëyee lan la ma nit ñi di wax lii da nga koo xamoon da koo xamoon du lu ma xam man damaa amee seetu rawaan man lu ma bëgg a xam si réew mi dama koy xam. ndox mi moo la ko wan. ndox mi may wan lépp man dégg su ma toogee si ndox mi lu ma bëgg def dama koy def dégg damay seetal nit ba mu jooy. Ah. damay seetal nit ba mu jàpp ne nit moo dugg sama biir kër wala jox ma ay ay ay soxlam. Mm-hmm. nit ku nekk nag dafa am doyo ju yàlla may. Mm-hmm. gannaaw loolu yëpp nag ñun si alxuraan rek lañ sukkandiku. gis nga càngatu alal gi nga ngay nettali nii. sungufi oor la ak sungufi xaalis lañ lay jox nga di ko sangoo alxuraan la waaye jinne yi nga xam ne ñooy dox ñoo la koy yombalal boole la ak jaam yàlla yi nga jox ak alal dégg ñi siiw si àddina ñëpp ñii bayra leen siiwal ñii cangatu alal moo leen siiwal man cangatu alal dama ko alal amee xam bu yi ma def fii nii lu tax nit ñi di jugee fu ne ba Mali fu ne di fi di fi ñëw bu fekkoon Cheikh Baye dafa oyof duñ fi ñëw mais nag Cheikh Baye moo nekk sëriñ boo xam ne tey mhm. junney sëriñ ñu ngi koy pirate yow xam nga si dara chaque jour ma kalaame la. Facebook bi ku ngeen fa gis mu jël ay numéro taf ko ne Cheikh Baye la Cheikh Baye ñooñu c'est des voyous c'est des bandits euh, section de recherche mi ngi def liggéeyam. ñoom ñëpp dañu leen attrapé jàpp leen yeew leen ñii ñu tëj leen ci kaso bi parce que affiché nit ki naan yow la te fekk du moom mbokk yi Cheikh Baye numéro yi affiché moom mooy ay numéro am bu ngeen ko gisee bu ngeen ko ci wooree. moom ngeen di jot lu dul numéro yi du numéro am euh, sëñ bi bala ngaa dugg feneen ana ñaari butéel yi nga xamante ni am na ci butéel boo xamante ni 13700 nga koy joxe. butéel yi dama koy joxe ba mujj si maliens yi nga nekk Mali ak ñi nekk si centre Afrique bi ñoom dafa mel ni butéel yi buñ ko amul duñ am jàmm. xam nga lu tax ma def ko 13700 boo jàppee biddi doomu aadama toujours dafay taxawee 13. léegi nag nit ki bu amee gàllankoor ba umu ba umu ba tëju mhm. kooku la biteel yi gën a aay mhm. am na koo xam ne tey dégg su jugee ñëw pour ut si ma mënta jot lii si man parce que su ñëwee temps bi muy soxla pour am ak man temps bi du ko am mhm. mais nag bu ootee fa ne dañ koy oote rek tegal ko biteel yi mu jot ko biteel yi du biteel yi caaxaan treize mille sept cent lañ koy joxee ñaari biteel la te benn bii nga xam ne nii moom mooy bu weex bii gis nga lii nii li si nekk suñ la ko waxoon ah. danga naan déedéet xam nga lii lu si nekk mas nga gis puubi jinne <laughs> Cheikh Baye yow wax lu garaaw mos nga gis boobu jinne. Cheikh Baye wax fees na de. <laughs> non non xam nga man nee naa la su may génn di wax. Ah, ah. damay wax loo xam ne bu déwénee sax moom lay nit ñi di déglu te moom lay sëriñ si di téye. Ah. di ko liggéey at. man sama image. benn vidéo moom lay sëriñ si di liggéey at. nga ne li lan jinne la. déedéet man mënuñoo wax jinne xam nga man tey dégg aw ma jinne uh-huh. damay garante askan yëpp ne leen aw ma jinne uh-huh. mais mën naa am puubi jinne mais foo jëlee puubi jinne tamit waaw loolu sama pexee la man uh-huh. parce que man su ma bëggee jàmm yàlla yi bég bég si man di sangoo samay garab di yëg jàmm di yëg alal damay xool li méngoog alal ak li méngoog jàmm ma di leen koy jox lii puubi jinne lañ koy liggéeyee boo ko liggéeyee puubi jinne ba pare dangay def loo man nga wut or nga def ko si or lan lay joxe xaalis sungufu xaalis lañ lay joxe. xaalis tàndarma lañ lay joxe. da ngay suur jeex na moo tax nit ki des fois dafa am fu muy toll si àddina duutut jëmmam ji jëmmi jaam yàlla yi la man tey dawaliwuma lu may jox client dawaliwuma résultat bu may am xam nga lu tax dawaliwuma lool waa àddina bi ñoo ma gërëm sant ma si ni ma mel nee naa la sànq ne la am na sëriñ yoo xam ne su fekkoon na tey dañoo pare pour am alal tey dégg tey ñi ne dañoo mën a seet wala ñi ne dañoo mën a ñaan yàlla ni ñuy toogee ci média ni leen di couverture ñiy wax di wax di wax lu ñu wax mu tombeek lara am ñooñu tey bu fekkoon ne li ñu wax dëgg la ci ñoom konoon heure bii lu ne am neen ko ci àddina dégg sëriñi Dakar yëpp appartement la ñu loué ñun ci kër la ñu dëkk adresse bu wér laa am soo ma soxloo Tivaouane Peulh nga may fekk sama kër bu ñëwee borom pay ma numee nga jaat bu la neexee nga fekk ma sama beneen kër si ak si apex bi kon sëriñ adresse mooy sëriñ man ragaluma ah. pour mën a ànd ak client client boo ma doon jox ay millions yëngaluma dérange ma parce que fekk nga ma am ko mais nag nañ ba xel war gi ñu war Ousmane Sonko muy ay sëriñam nañ ko bàyyi nañ xam ne liñ nekk nii si Sénégal nii du dara dafay jeex takk mais nag buy jeex dafay rafet te ñaareel bi am na ñu ma gis sax ñi piraat sama wax man ak yow si garab yi kàttan ga nga daan joxe loolu loolu da nga koo war a kaas. garab yooyu nga xamante ni nit ki mën na koo naan sëy ba wéq kamuy nekkal. dëgg garab yooyu dafa doy waar. moo tax du ma ko waneeti gisoo léegi waneetuma ko dama toog Maroc 10 jours ay junne nit naañ man garab gi garab gi ba ma ko jëlee biir bi métti bi ma def ko si ne yónnee ma sa numéro rek numéro keneen la lay jox mujj si yow sa bopp da nga naan man. nit ñi dañ ma bëgg a yàqal mais du yàqal xam nga loolu lan la dégg. Mm-hmm. nit bu amee barke. Mm-hmm. dafa am ñuy dund ci barkeem. mais bu ñu koy dundee nañ ko rafetal. dégg man ay million ay mais gendarmerie nag ñu ngi def seen. ñu ngi koy def bu baax que xam nga lu waral lool. Mm-hmm. ay ñu ngi koy arnaqué ay nit di ko lekk ci turu Cheikh Baye. te man boo ñëwee sama kër boo ma xoolee rek da xam ne du man. parce que xam la moo tax man dama suur loolu yëpp soo ko ñëw. te dégg gis nga àddina bii ñu nekk nii. lépp lu doomu aadama di def. jiital si wor nga bàyyi wor wor baaxut ba pare nit dafa war a am xol bu laab xol bu laab dafay dimbali nit dégg ni Wally sekk mel si médecin yi si woykat yi si star yi man noonu laa mel si sëriñ si da nga wax ne kon yaay vedette bi dégg man ba ma nekkee dégg man ba ma yéegee ba léegi wàccu ma dégg mos nga gis nit ku xëy rek message impro ne leen Cheikh Baye ni ma def xam nga lu lay nit ñi di wax. Cheikh Baye fi mu jaar ak man. Cheikh Baye kanaa dafa dugg sama biir kër dégg. gisoo kii gisoo ñiy ñaanal nit ñi mënatuñu am sa taalibe xam nga lu tax man damay jox nit ñi saraxu rawaan ne la demal bul soxlooti sëriñ. kayit di naa ay sax danga ko ci def. waaye kayit mu koy génnee si ay fan yu néew nga naan lan man seet rawaan laa amee. seet goo xam ne bu ma ko xasee teg. bu asamaan si di tëgg dama lay wax loo xam ne danga naan ndax li dëgg la. dégg lépp lu doomu aadama di ut. wala lépp lu doomu aadama di am. suñ la ko liggéeyalee si course ñaanal la ko yàlla mm-hmm. da nga naan nax lii am na wala amut ñaan dafa am dafa wér fii laa toogoon impro ne la ña demoon laa soxla ne la réew mi yëpp maa fi dàq seet ne la mm-hmm. képp koo xam ne da foto sa loxo ndeyjoor bii mm-hmm. yónnee ma ko yónnee ma sa tur ak sa tur yaay ma wax la luy tëgg te du tas waaye ñaata sëriñ ñooy foto lu seen loxo ndeyjoor dama seetaan benn sëriñ mu wax benn wax ju am solo mu ne am na ku ne foto leen seen loxo ndeyjoor bi waaye ba mu ko delee wax yàgg na man nag xañ na bosam euh, yàqu na man sama bos moo wér mu ne moom bosam yàqu na mu ne man sama bos yàqu na moom nag bosam moo wér léegi xam nga lu tax mu mën a wax lool nangu na ne tey seetu rawaan gii nii ak seet loxo gi benn sëriñ moo ko fi jox mooy bàyyi mm-hmm. micro impro bii sëriñ ñamu see osé ne su ma la joxee garab nga sangoo ko juróom-ñaari fan gisoo si dara kaama ma delloo la sa alal. te man maa koy wax. garab la mooy kaaraange ak ubbeeku ak alal. ci kaaraange ndax Sénégal fi mu toll soxla nañ kaaraange. kaaraange Sénégal da koo soxla bu baax a baax a baax dégg. Mhm. dégg. des na tuuti si kanam. Mhm. ñunu neen ñooy rayante seen biir. des na tuuti si kanam ñu nu neen ñooy amante problème sin biir xam nga lu tax dëkk bi dañ koo xabtal ak xabtal ak xabtal ak xabtal ba kenn xamul nu dëkk bi mel féticheurs yi ne si réew mi nañ leen jàpp génne leen réew mi dara andiwu leen fi nag lu dul alal lañ fi indi ay nit am alal dugal leen si réew mi ngir sacrifice nit ñi dégg viole bi nga doon dégg fan yi ki ki ki violé xale yi da ngaa fa ne loolu neen la dereeti xale yi nga xam ne ay xale lan loolu la soxla loolu féticheurs yow koy laaj te loolu bu amee. jànq bu ndaw si lañu si la ñu xamtalee réew mas nga xam loolu. gisoo tey xale bu ndaw bu nekk jànq bu am 15 ans. fu ko mag loo doon doon mag boo gisee sa xel dana nekk si moom. kon nañ ba xel yi nga xam ne ñu ngi koy fooye xale bu fees tel yàlla nañ si yàlla musal léegi nag yooyu yëpp boo si nekkee dafa am nooy dox ba pare ñun dafa am lu ñu lu ñu lu ñuy naqadi toujours di bëgg di ko wax nit ñi. lu mel ni impro dafa doon site bu rëy. ma jàpp ne man. Cheikh Baye su ma téyee micro impro di wax. duma xool impro de. Hmm. damay xool ki ko fondement. damay xool ki ko samp. Ah. damay xool ki ko dëgëral. impro benn sëriñ mënu koo yàq. bu la neexee yow lekkal xaalis bu la neex bu buñ la ooyee bul jël hmm. mais terewul nga yàq image yi impro sa image nga yàq dëgg ah. ñaata sëriñ nga daan jël micro ndax léegi a nga leen jël micro doo si jël kenn. ñu bëri instant yi bu ñu ma woowee dama naan leen yow juboo ñu jub rek ku ngeen fi gis fii rek muy feeñ borom xam-xam la. ñaata nit ñoo lay oo di la kalaame ba xam ne na la dégg lii kii def ma nii àndu leen si. kon ñun. bu ñu yàlla mayee depuis 2017 wala depuis 2018. ñi nekk impro di wax. à base de impro moo baax si ñun. soxluwun beneen site. soxluwun beneen programme télé. soxluwun dara. ñun impro moo ñu saxal si la ñu waxee. da gis nit invité la ne la dama laa bëgg invité sama plateau nga ñëw. mais boo nattee plateau am imporo impôt soxlootoo ko moom. kon xam nga lu tax loolu. biñ fi nekkee. Uh-huh. dafa am ay nit ñu ñu xamale impôt. Uh-huh. nañu fexe leen seen image génn fa. Uh-huh. bu fa seen image génnee. nit ñi seen nit ñi leen di dégg te xamul leen danañ leen xam. te ma it am na lu ma yàlla may. ma gis ko si Médoune ki moom impôt. mooy gisuma nit ku ko gën a jub. gisuma nit ku ko gën a honnête waaye gisuma nit koo xam ne mën nga koo bëlëfe kon ñun sëriñ bi ñu doon ñun nekk ko noo ko sin baatin tàngooru baatin bi day yóbbu imporo medun mii duma ba ma fen laaj ko 2017 laa ne ko imporo day dem te bi ma koy wax boobu imporo am na prix bu mu tolloon am na fu mu tolloon am na nu mu doon doxee te imporo tey àddina bi yëpp ñu ngi koy siifur bépp site internet bu jug pour jamaarloo imporo bu yàggee day daanu seen wet jamaarloo nag imporo Sénégal démarré na impro lu bëri bëri démarré na impro mais taxul mu génn si saa à am loo yàlla moo koy jagleel sëriñ si ah, Cheikh Baye fi mu waxee Cheikh Baye bépp micro bu mu waxee ah. fu mu nekk day barki xam nga lu tax mooy ki jugee àll ba ñëw ak man est-ce que xam nga ne dégg sama añ képp ku si lekk jàngoro day tàqali yow Cheikh Baye ceeb bu weex nga def tey def ci carotte def ci jën ma ne soxna si neex na mu ne ma amul jimbo amul ah dafay faj dégg am na ñu fiy ñëw amee suukar jabet bu ñëwee dañuy lekk bu suur dem seen yoon suñ demee xool seen suukar ñee leen zéro kanaaw looloo gën a garaaw te yow fàtte nga laax bi laax bi ñuy joxe suba teel gi. laax bu am solo. mooy laax bi nga xam ne day dindi rattaxit lekk ñam gu bon. Cheikh Baye laax bi nekkul lu ñu araw laax bi sànqal la. moom mooy li ma la wax rek xam nga Cheikh Baye. Uh-huh. monument la. Uh-huh. man monument laa si biir sëriñ si monument laa si biir fajkat yi. Uh-huh. dégg. su duwutoon ak cat. xam nga ñun mënuñoo wax ne cat mënuñee jàpp mais bu dugutoon ak cat mhm. deneen jox doomu aadama yi loo xam ne dañ naan déedéet mais cat waxtu li ëpp lu koy dindi mhm. lii nii gis nga lii mu gën a garaaw si cat maanaam gis nga bitéel bii ngay gis dégg ni gis ko nii rek li am na ñu ko sangoo dañuy wej wej di jooy bu la fekkee jàngoro ju bon sax sa biir oh, day mel ni day raxas sa biir ba mu set mhm. mos nga gis ku ne la damaa dem si sëriñ sangu suma biir bi di daw su ma la yónnoon sama téléphone bi jël message yi nga déglu ko da ngay wax déedéet man damay dindi jàngoro ak nit dégg lépp lu doomu aadama di ut uti ko si Cheikh Baye waxuma ko pour ndam sama bopp waxuma ko pour dara dégg tey ku xam Maroc tey danga ko xam si dund bu cher da nga ko xam si nekkin bu cher Cheikh Baye mën a def Maroc un mois di jours ban sëriñ moo ñeme lool. wàccoo kër kenn soxluwuma dara si jàmbur si nit fi ma dal man di fa yeewoo man fa lay ministres yi Sénégal yi di yeewoo fi ma dal di fa yeewoo fa lay borom doole yi di wàcc te gisuma benn nit bu mos a xëy ñëw na ma lii ak lii maa la ko fi indil parce que ñun am na lu ñu yàlla suturaale fépp fu ñu yeewoo yàlla wàccee na fa barke gi ñu dundee ba korog ba ñu ñibbee te boo ñu fekkoon mu rek da ngay foog ne da foog ne fii lan dëkk nii lay doomu aadama yi di duggee di añ siñ añi di lekk siñ lekk yi di di lekk liñ bëgg lekk waaye nag loolu yàlla moo koy may nit yàlla nag danay darajalee nit lu bari usman sonk mii tey yàlla darajale na ko nit ñi mais xoolal ni koy nit ñi di waree te sonk man dama koo yërëm parce que xam nga moo tax mi ngi xeex loo xam ne du pour moom pour Sénégal kese la kanaa xamoo Ousmane sonk su ma doon moom damay bàyyi Sénégal dama leen bàyyi dem toog na le dama leen ba Sénégal ay warkat lan warkat yi dañoo bëri dégg dëggu gi Casamance am Dakar amuñ ko dëggu gi dë dëggu gi nga xam ne tey moom la Mbàkke am Mbàkke Dakar sax amu ko xam nga dakaar lu luñ gëm sangu ba seet noos taag antenne lu xew tey lii xew lu xew tey lii xew mais nit ki su fekkee dafa am dayoo jum nekk si dayoo jooju dañ ko siy dimbale. léegi nag moom bu yeew woon dëgg day bàyyi politique bi yëpp dem téye ji meeram bee toog jàpp boppam parce que sénégalais yi dañoo gëm ne dañ leen war a nopp te nopp googu day continuer dugal nopp nopp nopp moom góor ak jigéen ñu sëy biñ ci am mm-hmm. vingt quatre heures la te vingt quatre heures bi yow da ngay toog ñi defal la ko ba pare suñ ci déggooyee nag te it kaay ma wax la benn affaire boole xol ak xol dafa xaw a diis medun boole ñaari xol nga gis jigéen boo xam ne dafa bëgg benn góor te góor gi bëgg ko loolu dafa xaw a diis mooy comme yow mi dem si toilette bi fekk fa fekk fa mu salte lool dara mënatu koo salt saltige lu du asib. mais boo ko bëggee oma da ko bomb ba mu set te doo danga bomb ba sonn te du set. noob moom ñu si amee di ko joxe. vingt 24 heures la. yow yaay toog bu déggoo nag yaay toog oo waa ji ba ba oo ndaw si ba wax ak moom li nga bëgg a wax ak moom ba pare. ñu ne la lii la lii nag buñ ne la lii la. ne la sart bi lii la nga dugal ko. vingt 24 heures ki nga soxla dana la oo wax ak yow. ñu bàyyi la nga tàggatoo ak wi lay suivre ci MPROD TV. li yëpp mooy. amun déception si àddina amun déception si Sénégal xam nga si lañ lañ am déception si sëriñu Ousmane sonk yi ak ak warkat yi dégg man dara méttiwu ma si àddina lu du warkat yi nekk Sénégal ñii war raga ma métti nañ rafetal jukko yi nañ jëlaat jukko yi teg ko si kaw te gis nga numéro yii képp ku may seetaan bëgg a jot Cheikh Baye bu la wéree na Cheikh Baye nga bëgg oo téléphone oo ko si numéro yi ngay gis 77 la mhm. 619 54 54. 77 822 18 59 77 278 70 70. xam nga dafa am loo xam ne dégg man tollatuma fu may bantu ay numéro xam nga lu tax. dafa am cent 367 70 70 dafa am loo xam ne si man. dafa nekk si man ma bañ du ko wax nit ñi. mooy na man bañu ma nit kuy affaire nit. mais bu ko jaarale sama tur. parce que man ñes laa sant. man sama image du image bu ndaw image bu kawee la parce que am kër gu ma dëkk am fu may yeewoo doon fa kilifa bokk nag si dëkk bi la ñuy defal sa kañ gëm ma ma ko fay def dégg man ak yaw ban année lan àndoon si social jëmle ko kër Baye Niass ban année la woon. mi ngi nekk le 13 octobre 2012 xuma 13. 2012 2013 la woon lañ àndoon Taïba Niassène te boobu ak léegi yëpp maa ngi def. ba yàlla dimbale ma léegi événement bu jotee may man a rey ay nag si dëkk boobu di ko saraxee man baay ñees ak laa gëm mooy sama sëriñ mooy sama maam waaye mboolem ku nekk si gannaawam doon muqaddamam doom léppam maa ngi sa gannaaw man du ma sëriñ duma dara bàyyi ñees rek laa gëm taalibe laa te taalibe laay nekk te am naa yaqeen si ndigal ñu jox ma ne ma lépp looy defal bàyyi ñees def ko sa kër moo tax boo ñëwee événement sama kër lu may def yëpp foofu laa koy def maa njëkk xale bi njëkk taxaw yóbbu mbir na bàyyi social gàmm di joxe ndékki loolu yow yaa yow yaa intéressé micro bi foofu kon am na yoo xam ne suñ ko doonee si dëkk buñ nit ñi di affaire si ñun ñun duñ affaire kat ñun ay sëriñu noobul lan ay sëriñu ligsi lan dañoo tabax suñ kër yi dëkk fa te du ñaan dañoo dëkk si ñi bopp di dawal si oto te du ñaan gis nga ñaan gi dégg bu démb doon tey duñ si dugg si média kanaa xamoo man bu dem doon tey duma ma dugg si média su ma la waxee dara doo ko gëm ñi may jox alal man du duñ xoo duñ dajeek man si média ñi may jox ay millions duma dajeek ñoom si média mais nag man maa opté tey mhm. pour nekk sëriñ pour dimbale jaam yàlla yi wasalaamaaleykum wa Cheikh Baye Ibrahim ñas ginnaaw ba mu jógee ca séjour bu rëy boobee mu def ca Maroc ba mu wàccee Maroc wàcc na foo xamante ni yaakaar naa pour nga fanaan fa génn guddi rek faaw nga yor lu am doole ci wàllum koppar euh, ci ay diraam boo ko koo ci CFA mën naa ne dina bëri lool. def na fa weer ak lu tegal mbokki jëmm ji boroom xam-xam la te ñaankatu yàlla la kilifa la goo xamante ni lii mu nekk lu mu xam la te lu mu namp la waaye mbokk yi mi ngi ciy jëriñ jaami yàlla yi ay ci numéro yaa ngi képp ku ko woo rek di ko jot. mbokk yi doon topp di ñu ci improtive TV yàlla na ngeen bëri jàmm ci dara jey Muhammad Rasulullah